ñun euh, ay militants APR lañu d'abord euh, am candidat boo xam ne dañ ko choisir pour ci jongante bi nga xam ne dafa war a tàmbali tel nañ cee prononcé wu bi ci kenn prononcé wul euh, depuis le 13 octobre ni ñun horizon 2020 plateforme la Macky lañu la samp pour sunu candidat pour un second mandat loolu it ñu ngi koy confirmer que Macky Sall mooy candidat horizon deux mille vingt ak sumay mbokk ak sumay xarit ak militant yi nga xam ni APR la ñu bokk te dëkk ci département Mbacké ma fàttali ni département Mbacké maa nekkoon coordonnateur bi maa fi sos parti bi li fi ko fi sam maa fi yor majorité ci mbooloo mi. mais kenn nekkatu fi coordonnateur depuis ma jóge fi caaya ju amul geño la moo tax pëccaxoo bi bari caaya la ju amul geño kenn jiituwul kenn toppul ginnaaw ndax ñi fi nekk kenn nanguwul ku la jiite wala ku topp sa ginnaaw moo tax ginnaaw bi ma yóbboo suma vote Dakar ma am coona ndax jàpp naa ne bu ma ci dugalul sama loxo ñi fi ne mënuñoo gañeel Macky Sall loolu laa gëm fi ne di nax président Macky Sall di def ay nekk ay dealer ñenn ñi ay opérateur économique yu bëgg ay marché lañu bu ñu demee bu Macky Sall génnee ñu sanctionné ko ndax ñenn ñi woteelu ñu Macky Sall sax ci législative yi pour di ko wan ne amoo fi ay nit pour ñu jox leen ay marché ak xaalis te marché yi ñuy laaj mënuñu ci dara am na ci ñuñ ci joxoon ne marché nangu nañ ko leneen li am na ci ndaw soo xam ne it toujours mi ngi nax parti bi yàq na parti bi te bokku fi woon ndax moom bu doon mooma Macky Sall du falu ndax dako doon xeex bi mu daanoo da ko doon xeex mësu koo voté ba nax leen ñu jox ko xaalis bu dul jeex muy jaxase nit ñi kon loolu moo xew fii moo tax nag man su njaboot ma dajaleyaat leen indi fi alal jox leen ko ndax démb ak tey li ma fi ñàkk mët na fukki million démb ak tey ndax jigéen ñu mag ñi jox naa leen ñeenti million jox naa jigéen ñu xale yu góor yi euh, ñaari million xale yu jigéen yi un million jël naa ay kaar jël naa ay sono samay xarit yu jóge Dakar sax jëlal naa leen ba ñu ñëw muy délégation pour ñu xam ne meeting d'ouverture bi meetingu coalition bi de te dama cee bokk moo tax sama mbooloo mépp dinañ dem da ngeen leen gis euh, danañ teel a génn danañ teertu président danañ approuver candidature am leneen li nga xam ne nag mi ngi sunu biir xam ne déggoowunu ci sunu biir daanu ko régler après ndax am na loo xam ne après lañ koy régler ndax du ma toog fii ni la ñun ñëpp dañoo juboo ndax Touba li fi ne bu ko président cautionné du gagné élection yi Touba loolu moo wóor ndax ñi fi ne di dem ci moom di ko laaj xaalis di ko def seeni poche xam ne dañoo xiif man législative yi def naa fi plus de cent millions ñu yàq élection yi te ñi ko yàq bëgg Macky Sall jox leen xaalis a tax élection bi it biñ ko waajee ak léegi yaakaar naa ne demaguma foofu mais ci processus bi li ma ci ñàkk léegi mu mat trente millions te ak seguñ ci campagne bi kon loolu maa ngi ci alerte président ak directoire campagne am xamal ko ni ñii ñëw ci moom mbaa ñuy ñëw ci Farba Ngom te li yàqu nag ci parti bi lépp Farba Ngoma Farba Ngom moo nekk ca Ndakaaru di buur di bumi di yàq xamul li xew ci réew mi te lu ko neex def loolu nag lu président war a régler la bu dee yëgul loolu maa ngi ko koy yëgal ne Farba Ngom mooy yàqkat bi gën a rëy ci parti bi te bu dégloo xalaatam ah lii xew dana fekk loola passé na ubbi ay bëtam xool ndax camp dara passeegul am na chance su mën a récupérer ñi ko mën a defal dara ànd ak ñoom pour gagner élection yi waaye élection yi am nay problème ci préparation bi te nii ñu bëgg a doxe buñ ko doxee mën naa am problème loolu moom maa ngi alerte te it lii wax naa ko xalif général des mourides ci suba ndax falaa jullee kon loolu danaa leen ko yëgal foofu laay yem du ma ko weesu maa ngi alerte président daal mu xam ne ay góor yi ànd ak moom démb ba yóbbu ko ci pouvoir bi bu sukkandikoo ci seen i wagg fonk leen faratal leen dana gagné premier tour waaye nag bu ko nit ñi def loolu leneen ba mu def ko lu mu gis ëllëg ba mu ni kat xawma ko woon la ab Abdou Diouf defoon ak Ablaye Wade ay élection lañ def ñi xiif ñëpp ñi ngi ŋang te ñooñu xiif luñ ko dara ku xiif nga ni Moustapha Seloo mi am ay cent millions di ko def ci nit ñi mënul dara Touba man mi xiif jox ma xaalis ma dem wutal lay nit ku xiif de boo ko joxee <laughs> sab xaalis bu duggee ak moom ca roq ba danaan mu daanoog bàyyil ay yemale na Macky Sall xippi bëtam te xool te xam ne ñi ngi koy nax ñi ko wër dañ koy nax de waxuñu ko dëgg kenn waxu ko dëgg. Mhm. ñi ko wër ñépp ay naafeq lañu duñu wax dëgg tey. duñu wax dëgg. léegi juste kon mobilisation mi ngi des ba léegi Touba. Touba maa ko moom hmm? politique gu Touba hmm? maay chef bi maay général bi maa ko moom ndax li ma fi am ci nit benn politicien ci benn obédience bu ko fi am amul tey ci Touba buñ ma fi doon tëkkale kenn lañ ma fi mën a tëkkaleel muy Madické ndax am na fii mbooloo waaye ñi ci des moom dañoo ñëw di fortaatu kon nag man mi fi nekk 43 ans bu dee nag ñoom man nañ ma fee ëpp mbooloo du wóor ndax fi mu toll tey ñi daw ñëw APR fii ñoom ñëpp ay dealer lañu. APR ñi fi nekk tey ñun ñu ne mën nañ dara ñëpp ay dealer lañu kenn ku ci man dara amul ay trafiquant ak i dealer ñoo fi ne man rek maa fi set wecc man rek maa fi set wecc li may wax na kuy tontu na ci tontu wasalaam Touba ñun langu politique gi laay wax li may wax dugaluma ci ab sëriñ mbaa boog sëriñ bi nekk man ci langu politique di politique laay waxal dama ni fii ci politique bi man maa moom Touba may général bi li ma fi yor ci mbooloo muy politique topp ma kenn yoru ko fi ku ma wan nga naaw nga ko xam laaj leen ko lay Wade loolu laa wax damaa bëgg loolu ngeen wax ko loolu laa wax mu leer ñëpp fekke ko